waaw. dans sa déclaration loolu rek moo ma ci intéressé. Hmm. et puis beneen bi. et puis daf ne ma leen. et puis et puis beneen bi abu et puis beneen bi abu. Hmm. les organisations de société civile qui dëgg sur les droits humains. Hmm. xeetam ñoom aliunti Tine ak Seydi Gassama ak ONDH ak FIDH ak ñoom i seen. coow lu ñu yëkkati woon si coowal Papa Alé Niang ñoom ñëpp ana ñu ils ont tous dañoo nekk leen déedéet dañoo nekk leen utal liggéey ci assises yi. ah jeex na xam nga assises yi. Mhm. lañ nekk di leen utal liggéey dañ leen di taayal foofu ay poste xam nga xam nga poste yooyu ñu nekk moo tax mhm. taluñu leen parce que xam nga lu tax dañu demoon muy Seydi Gassama Alioune Tine ñoom ñëpp dañu bokk ci projet bi xam nga hier je mhm. ay une jour benn journaliste bu ma doon débattre ci plateau mu daw. dem ba dañu toog ci plateau je l'ai wax naa ko Ablaye Mbow démb. bëggul émission bi yegg moo tax mu daw démb. ah kon yow yaa andi woon coow. waaw mais Abou Mbow. Eh, parce que non Abou Diallo.

mu 90% n'y quatre ci projet ci ci ki bi dañu démon liggéey ci projet ba. Mhm. C'est parce que motax ta conclusion yi mënu won pare. mais nak ministre bi buñ ñu la indee nga rencontrer les acteurs de la presse les acteurs de la presse c'est pas ñi nekk ci conclusion. conclusion warul ça n'a rien à voir yow mi keneen ak keneen pas ay acteurs de la presse lañu. pourquoi ñu bloquer. ministre bi reculer ci lolu ma ne kon biñu ñu fa mu né non. le les assises dafa euh, Babacar Diagne a ngi fa Makhtar Silla ngi fa euh, Diwa ngi fa ñoom ñu ngi fa ma ko si Babacar Diagne ba fa nekk mais les mêmes <laughs> acteurs mais qu'est-ce que ça veut ñoom lii saak yéen ñëpp yéen a jël Babacar Diagne yóbbu ko au poteau vous êtes en train de travailler dans le projet ñu dig leen Sénéral ngeen nekk ci suuf di ko liggéey mandat Babacar Diagne mu ngi jeex yéen yéen ngi xeex pour récupérer Sénéral ma ne leen Babacar Diagne man njëkkum man man de maa doon défendre Babacar Diagne ndax parcours am mhm parce que du yombaat ñu amaat parcours bu mel parcours aussi reluisant exactement ma ne ñoom ñoo génn taxaw di ko lu mel ni xamee Ibrahima Lissé ñom ñoo ñëpp ne Babacar Diagne liggéeyam parce que daf ñoo ñoo fi wara a nangam nangam parce que loolu lañ lor ñeewoon parce que Aïssatou wax na ko on a vécu l'histoire de Wade ñi ñëk dem migré wu ci presse dem ci état bi mag di ñëw ba mu ñëw dafa mutiloo ñu bari ñu dem jël ay agence jël leneen mhm. mais bi Ousmane Sonko di ñëw son projet dafa am cohorte de journalistes ah, mais Ousmane Sonko

Mm. ba mu jàngee génn da doon interview foofu eh, xam nga TDS lu muy signifier té lolu waroon nek objet appel candidature. té conclusion yooyu. moo surtout TDS TDS Soleil. OPS APS euh, mm-hmm. APS mm-hmm. Soleil mm-hmm. RTS. kooku waxuma sax même appel candidature lele man j'avais tout le temps dit que toute la presse ak CESTI ak isik ñu mag ñep ñoo war a di daje structure yooyu ñuy génnee ci seen biir journaliste yi di ko jël. mais bi ñu yegsee mais Pape Alé Dakar matin mosu fa recevoir ku bokkul ci camp Ousmane Sonko mhm. kon bu demee lañ doon wax Racine Talla Pape Alé mu ngi ko doon def bi mu nekkee fële ah, léegi man deuxièmement Pape ñëw ñu jox ko RTS créer mhm. lanceur d'alerte pour tuer le journalisme jot na TV ñi fa newoon ñu casé leen kenn ki ñu yóbbu ko Soleil kenn ki ñu yóbbu ko TDS waa léegi bi ñu yegsee fii ma ne leen le premier ministre ñoom bi ñu yegsee lan la ñu wax ma ne leen assise yooyu moo gënoon urgent parce que président de taxaw ne leen yéen rek lay xaar te pendant ce temps ministre bi dana ñu ngi liggéey ci ay assises suñu paree bu ñëwee ñu def ko loi. Mhm. mais ñoom ñoo traîné assises yi parce que ñi ne woon ci assises yi si ça ne c'est que Baba si nekkoon Babacar Diagne kese ak Makhtar Sylla ak professeur Mbaye Thiam liggéey bi yegg na mais c'est parce que ñoom ñooñu groupe boobu ñoom Domingo Mbow ak. ñoom ñooñu ñëpp dañu dañu refus xam nga li ma bañ mooy ki yoroon euh, maison de la presse. dafa Baara dafa ne APR laa bokk. dafa Racine Talla ne Babacar ne APR laa bokk avant xam nga mm. tey man li ma gëm. mooy jour nga taxaw ne man carte APR laa yor assumé assumé ko waaw ah. mais loolu laa gëm mais ñoom assumé wuñ ko ba pare nekk ci biir di yàq ba pare boo waxee ñu ne non mais bi may bu may tagg journaliste yi bu may attaqué yenn journaliste yi journaliste mbubboo politique pour yàq métier bi mhm. parce que Babacar Diagne bàyyi Babacar Touré bàyyiwu fi lii Sidi Lamine Niass bàyyiwu fi lii euh, Mame Less Camara bàyyiwu fi lii mhm. mais bu may wax am nañu ay rak journaliste yoo xam ne parce que gis naa ko ci Racine Talla mais Racine bi ñuy attaqué l'une des meilleures journalistes. tey hmm. Pape Alioune Sarr ñëpp a koy ndamoo. waaw je le cite partout. Aïssatou Diop Fall ñëpp a wax parcours am. wallaahi nee la Doudou Coulibaly moom ma njëkka tàllal micro après à part Cheikh Tidiane a à la deux à la Walfadjri. moo tax mënu ma fàtte Sidi Lamine su may xeex ci Walf ñun nii duñ comprendre parce que fan lañ ma njëkk a joxee micro. ma nekk xale bu ndaw ñu jox ma micro. beneen bi après mooy tàkkusaan yi nga doon def foofu ci dossier Khalifa Sall tàkkusaan waaw mhm. ah, mais ñu taxaw ne damay xeex presse parce que Babacar Touré moo ma jëloon def ma fils adoptif mu ñu génn àdduna ma taxaw ne maison de la presse lañ ko war a tuddee maam les génn àdduna ma taxaw ne CESTI lañ ko war a tuddee mhm. waaye léegi avant ñuy dem élection ay nit dem taal CESTI hmm. projet bi bi ñuy xeex pour xeex CESTI lañ ciblé ak fac droit moo tax bu ñu demee indi Mélenchon man du ma bett hmm. bu ñu ñëwee aussi tamit indi problème mu journalisme lanceur d'alerte du ma bett parce que sesti la ñu taaloon mhm. parce que leader politique yi ñun bi ñu daan xeex bu njëkk dañuy wax bu ñuy xeex bu leen laal université bu leen laal police bu leen laal lii bu leen laal lee mhm. te kenn ñaaw lu ko woon boobu amee tey ñu yegg si fii ci lii man du lu may bett parce que dañoo wax ma ne leen les directeurs publication soxlawuñ leen parce que bi Pastef gagné rek dañoo defar vidéo dugal ci Abou Diallo dugal ci Bachir dugal ci Madiambal Diagne dugal ci Aïssatou Diop Fall dugal ci Aliou Sow dugal ñooñu ñu la ñu soxla bugan lañu soxla soxla wuñu way directeur pub bi parce que ligne bi bugan nek instant bi arranger wulen leen bougaan la ñu soxla soxla wuñu way am bi de ils ont besoin de ça mais ñi nga xam nak par contre bugan motax ñu feñ télé mhm. ñi taxawoon di alok di jog am ni bugan motax ñom ci ay turbinam la ñu siwee si la ñu feeñee mhm. su monstre bu jog di gañ ci bugan ñu wara taxaw ñu wara taxaw gor non lay mel do ñew taxaw di ray ray ak nangam ak nangam ci la bot di xex ñukoy xex xeex te moom créé emploi mais Madiambal Diagne Madiambal Diagne bi muy créer emploi fu ñoom Ousmane Sonko nekkoon ak ñoom Diomaye wax dëgg yàlla bi di créer emploi fu ñooñu nekkoon mm. <laughs> Aïssatou Diop Fall di créer emploi fu ñooñu nekkoon yow waaw léegi yow nga yeew yow journaliste boobu bi nga amee sa métier état bi joxu liggéey ci privé boobu ngeen dem mm-hmm. ñu nekkal leen fa ñooñu taxaw nga taxaw di leen seetaan dafa am lu ma hypocrisie bi am fi ak nafiq bi am fi waxuma ñepp nak fuma ñu bon dina wax ñu bax fuma ñu seen jikko leerul dina wax ñu seen jikko rafet mais problème bi moy li ñu wax ni dama la wax ne la yeen sen conclusion dama ne ko dama ne assise yi warul won am te assise yi parewul ah. parce que ay assise dafa entamé wu woon te dañ ne rew mi liko yaq moy mooy. bi parewul woon. non xam nga mais rapport bi comité bi deful won rapport ba pare. xam nga dañ ñoom wax nañ ko bëri ki démb parce que bi ñu paree dañu ne pare wuñu liggéey bi xaw ma lan mais liggéey bi ñi ko doon liggéey ñëpp demoon nañ ci campagne bi ñii ñoo yoroon yenn sites yi ñii ñoo doon administré yenn sites yi ñii ñoo leen nekkaloon ci yenn plateau yi mm. ñii ñoo doon dem ci yenn plateau yi auto ay chroniqueur ci ñoom ñii ñoo doon toog di ram leemi leemal di làppal mm, mm. mais bi ñu paree bu ñu leen laajee affaire duñ ko duñ ci ne parce que man damaa yàgg bokk ci ñi militants yi nga xam dañu war a xeex pour ñu delloo si waat journalisme parce que man ci journalisme laa jàngee ci laa mottalee sama éducation de base mhm. RTS presque seetaan RTS ak yenn télévision yi ak yenn télé yi moo ma mottali voilà mhm. amee culture générale mhm. tey sama ñi ma gën a bëgg ci àdduna mes références c'est des journalistes du ma yeewu tey nga gis ay journalistes yoo xam tey li ci gën a naqari na ñenn ñi intérêt ñen ñi opportuniste ñenn ñi ragal xam nga ragal ragal commentaire ak ku leen ne moo tax ñenn ñi toog ci plateau yi leen mais ñun nag bi ñuy ñeme Ousmane ñemeegul woon. Jomaay ñemeegul mu ngi lekk foo ko moom de. ñun bi ñuy ñeme ci mbedd mi 2004 laa ci nekk saak baa ngi nii saa yu may génn léegi dama koy yóbbaale. parce que dañoo kidnappé Bah Diakhaté man kon bu oto bi di ñëw di ma kidnappé tey siir baa ngi ci biir. est que. loolu rek laa soxla. est-ce ñun ñii dañoo dugg prison génn négocier protocole ñun buñ fa duggee dañuy noppalu. wallaahi ndeysaan jaamu yàlla. bind livre bind livre man de benn benn booy woo na bu dee loolu parce mbokk yi ñuy woo dama am mbokk mbokk yi woo mm. xarit yi ñuy woo am di jàmm yi ñuy woo eh, moytu leen moytu leen moytu leen leneen ak leneen <laughs> Ablaye Wade yoroon armée ak police am ñu jàkkaarloog moom mu doon mm. maam bu baax Macky Sall yor ay milliards am faale wuñu ko mm-hmm. ñoom ñu nekk opposition ñu taxaw naan leen dictature pensée unique la ñuy def terrorisme dañuy bàyyi yéen ba ngeen yor pouvoir Ousmane dañuy bàyyi ba nga yor pouvoir yor police yor gendarmerie ñu doog a jàkkaarloog yow mm-hmm. ñu ngi nii abu may moom ma placé mu. leer rek laa ko ci doon may moom ma placé mu.